jërëjëf jërëjëf xale boobu nga xamante ni nii biral way wi tey nag ñu invité koo xamante ni nii kenn dootu ko présenté di ndar-ndar bu mag bi maître Madické Niang maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay waaye di wax ki way. Hmm. na mu tàmbalee neex na waaye moom ci boppam ba muy daanal ñaka gunge ñii dañoo jaar Ranérou ñii jaar fatik ñii jaar Wakaam. ñii jaar yoonu kawoon bi ñii jaar kaw xam nga way dafa am yëkkati ak daaneel ba mu yëkkatee neex na waaye ba muy daaneel ñii dem reneeru nañ ko bàyyi mu dem yoonam dem waaye di ko si gunge ba ñuy tasaaroo way ba way ba yàqu moo tax mën a teg ma am na ci ñoo xam ne bu na way way ci demal rek yow dong bu yo waa reneeru na la topp ak kawoon ku ne bëgg na man maay way du neex bilaay wax nga dëgg reneeru nga xam ne fa dëng bilaay wax nga dëgg bilaay ma di kañaa wax nga dëgg am na ci ñoo xam ni nanu téye seen lamine wii ndax bu doon lool kat du na am sarax eh, eh, ma di kañaa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. baa yaa ngi am jàmm. sant yàlla. ah tey nag wax dëgg yàlla ni dugg see sedd nii wax dëgg yàlla xamee mu la woon nii. waaw parce que xale bi nga xam ne mooy Zula ci sama kër la nekkoon. moo tax balaa may commencé dama koy rendre hommage ci xale bu yaru yàlla ko yàlla xale àjjana te xale boo xam ne wax dëgg yàlla doomu ndar la mhm. nekkoon ci man génn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana yi gën a kawe mhm. waaw loolu la waaye léegi mun nga laaj sa laaj ma tontu la jërëjëf jërëjëf kooku ngeen dégg noonu mooy maître Madické Niang waaye ñoo am ak jàngat am ak taxaw seetlu goo xamante ni ñii ci réew mi doxe ak ci réew mi demee yàlla dimatiwul fan yëpp ñu ngi jooy taw di jooy taw bis bi yàlla sàkk a yàlla mi dina teewul Macky Sall génn dem vacances taw bi taw mu soob kay ngay wax <laughs> dafa génn rek taw bi ne braj te Macky bu doon maay moom dana toog foofu ndax xam nga génn rek mu xiin hmm. nga egg mu taw kon bul ñëwati loolu ah, loolu kay <laughs> mag yi wax nañ ko maanaam nga génn rek mu xiin nga dem rek mu taw bu doon maay moom du gaaw a ñëw ndax xam nga ne fu mu ne nii boo demoon côté Ngéeñeen wala nga dem côté Fatick actuellement ni nag yi nga xam ne ñu ngi ko daan eh. loof te biram nag yi leen di xool ñuy dee te duñ ci mën dara boo ko jaayal da yàq mm-hmm. moo taxit taw bi baax na ci tepp teppal yi muy tepp sax dana tax li nga xam ne mooy cóor cóor gi daa dee suqeeku yow est-ce que d'accord nga ci dem gi mu dem na dafa <laughs> dafa yem na fa dëkk moo gën parce toog bi mu fiy toog nii te tawul tamit tàngaay dañu bëgg a rey ñun ñi am clim sax dañu dem ba clim bi day mel ne doo chauffage doon ci ñun ndax tàngaay mais gisoo ni woon euh, voyage boobu mu def Europe bu ko defoon ndakaaru gi ci yenn quelques recoins yi recoins yi Sénégal am na ci foo xamante ni nii mag mën na faam noppalu ko yaakaaroon ne bu ko defoon fii du gën ah ma di ko yaa ngi fee waaw maa ngi fi kay nga ne dama ni euh, voyage bi nga xam dafa dem Europe def ko fa waaw toog foofu nga yaakaar ne bi bu ko indi woon fii ci Sénégal toog fii ci recoin yi am na ci ko parti yoo xamante ni côté yoo xamante ni mag mën na faa matul noppalu ko nga yaakaar ne bu fa demoon a dem war a dem toog fa Macky foofu la war a njëkk dem ndax waa ngii ji loon boo leen a dana gën a gis Macky te élection yi yàgg na dangay dem si dëkk man bu ma demee vacances yi damay dem Ndar kos dem Ndar dëkk yi ñëw waa Ndar gis ma waa Gendar waa Goxu Mbaaj ñoom ñëpp dañ may gis xam ne la ñaari rakk ndar yi léegi mu ñëw mhm. moom nag dafa waroon dem nag ci biir dëkk bi Macky Sall bu doon maay moom parc Bandia bi laay dem toog ca gaynde fan ba parc Bandia dugg fa xool gaynde yi nemeeku leen yaa ngi dégg des fois nga def sa benn sa def sa benn sa benn sart bu ndaw rek dem géej <laughs> lakk sa jën xale yi wër la nga xaw nga wax ak ñoom daa de bonde des fois nga dugg sa oto rek wàcc ci marchand ambulant yi am ñoo def ak ñoom bojju leen xam nga dafay am yoo xam ne ay bojj la dañ koy def daw yu sew mhm. des nga dem Thiès ak arrêté Jakarta rek yéeg ñu naan kii kan la waaye makki nag bu yéegee Jakarta Jakarta ba toj bu jëkkee Jakarta <laughs> ndax xam naa ne makk bu wóof ci ginnaaw la nga ca kanam xanaa waaju buuju waaju buuju <laughs> ma dikkee ma dikkee ma dikkee ngi noonu waaw ngeen gis noonu wax dëgg yàlla nii mu mel nii muy waxee noonu la wax dëgg yàlla xol bi dafa laab wax dëgg yàlla ni nga koy gisee nii waxee noonu la demee waaye ma dikkee len rek moo nu xaw a jaaxal mooy li nga xam ne Macky Sall dem na taw bi taw xew na wax dëgg yàlla boo ne woon léegi léegi léegi ba fa toogee wax dëgg yàlla moo ñu gënal dinañ xaw a jaaxal tamit est-ce que duna manqué président de la république déedéet na fa toog rek ba taw bi sebet mu ñëw ndax loolu dafa gis nga euh, man ba ma amoon sax su ma am su amoon numéro Macky danaa ko boole ak samay yu ne foofu su ko defee ñëw mun na mun na fa toog na fa toog lu mu fa gën a yàgg rek daa dee daa dee gën ci moom parce que tamit bu fekkee da génn rek mu taw kon da ngay toog xam na ne réew mi ci boppam <laughs> ci boppam yow yaa téye woon taw bi Macky moo woon taw bi fii laa ko waxee de Macky Sall moo téewoon taw. Ah, li ngay wax Sénégal gépp ñu dégg. waaw ah, dama wax rek parce que ñëpp a ko wax ma toppaat ci rek du ma maa ko njëkk a a ko wax rek ma toppaat ci ko leen dugal ngeen bëgg. jërëjëf Macky kon wax dëgg yàlla nga xam ngeen déggee ko noonu léegi euh, euh, maître ma dikk ñaan lan ngay tàggatoo askan wi. li may tàggatoo mooy. Adja Khoudia. day bàyyi ko xam nga li ma bëggoon na xam li ma bëggoon xam mooy réew mi ñun ñëpp xam ne Sénégal benn bopp la te kenn mënu ko xar ñaar mhm. maa ngi ciy am mbégte contentement di la gërëm di la sant di wax ne nag kontaan nañ ci li nga xam ne moom mooy suñu te suñu teewaay ci li nga xam ne mhm. mooy waxtaan bi dafa am solo trop dëgg dëgg la ah, ma kii da ngaa mujjee ñëw ah, waaw moo ma woos alaaji bàyyi ko dañuy waxtaan bàyyi ko nga ne Adja Khoudia Bal noonu dañuy waxtaan wax dëgg yàlla euh, ma dikkee wax nga loo xamante ni nii ku ko digg at ku ko xiis di nga xam ne wax dëgg yàlla wax nga par côté bu noble Adja Khoudia da ngay toog bàyyi ko dañuy waxtaan demal waaw nga ne waaw lii moom ci lan la bokk ma dikkee xaaral rek danaa ko utal wujj bu ndaw dana xam boppam demal jërëjëf ma dikkee ngi noonu di kenn koo xamante ni nii wax dëgg yàlla di taalibe Sëriñ Tuubaa awakala ba bëggoon nga génnal ma kii nga xamante ni mooy ma di ñaa bàkkal ma ko xam nga dafa am ñoo xam ne bu ñu génnul télé dañuy dof nga ni waaw kii a Adja Khoudia day gérer la Adja Khoudia rek mais Adja Khoudia melul noonu xam nga boo boo sañsee boo sañsee tabaski sa say mbokk gis ñu sa yére nga bëgg leen ko wan ci émission Kouthia Show bu ne aara nga daw ko faa nga taxaw wane loolu rek pour war a sa yëre la waaye nag loolu do fi nga muus lay naanee ñeex fii. Eh? xam nga am ñoo xam ne duñu doyal tele bu ñu génn dañuy dof. télé day dofloo nit moom bokk na ci ñi nga xam ne télé da ko dofloo mooy ñanga mi du ajaa xudu nag mais ñanga moo mel moo bëgg génn télé ak fës ak ko xàmmee waaye tey nag musu fi naanee ñeex ndax ajaa xudu dégg na ma ko am ko am dégg-dégg la suñ ko wooyee danaa naam mbàkke ba pare bu ñëwee day sukk waaye nag fàcc na taxaw di say paccal ba pare taxaw fi na ne Adja Khoudia doo ko doon. jërëjëf looloo waxati nga ne. lan ngay tal awakara damaa wax dëgg yàlla kii nga xamante ne nii mooy euh, Madické Niang nga génneel ma ko wax dëgg yàlla woyal ma ko lu neex loo xamante ni jineel ma ko wax dëgg yàlla bu mën ko dégg bisimilah.